comme niñ ko doon def ci suba ba léegi rek ci liggéey bi tey ñëw nañ fii ci kër Serigne Cheikh Assou Faye moom Serigne Mouhamadou Habib ñu mu doon koo xam ne kon xam la ci sëñ Mamadou Dan doon kam doon koo xam ne it mën nañ mooy kilifa barab bi tey ñu ñëw ci bis bu tedd bi di bisu sëñ Mamadou Dan doon koo xam ne ku ko xamee xam ko ci sëñ Mamadou Dan bari na ci mbooloo mi ñoo xam ne ëpp ci li xam xam sëñ Mamadou Dan ci moom mi lañ ko xamee ci ay taxawaay yoo xam ne def na ko ak féete goo xam foofu la ko féete woon tey jii ñëw fekk ci ko fii di ko ziar bu baax di ko baal àq te di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér ngir sàkku ci moom ay kàddu yoo xam ni dana jëm ci mbooloo mi ak ci sëñ Mahmoudan ak jëmmi dëkk bi nga xam ni moom lañ koy moom ci ci la ñu nekk ak bis bi nga xam moom lañ def fekk fi ay kilifa yoo xam ne ñu am solo lañ di sëriñ xarim sëriñ Cheikh Matalay ak sëriñ Moustapha Mbacke di leen ziar bu baax di leen def kaddu bu baax a baax bi ñuy sàkku ay bu baax ci bis bi ak ci sëñ Mahmoudan. ñu ngi leen di sant bu baax di ne xam na ne it euh, bis bi moom wax nañ ci waxati ci sëñ Mahamadou it wax nañ ci waxati ci Mahamadou moom wenn melo rek la am dafa tànkam teg ko ci charia fab jëmmam def ko mu dig taalibe taalibe gi euh, mu fonk ko lool jàpp ko lool boo ko gisee taalibe gi dana tax nga jàpp ne amul xam-xam mm-hmm. te boo gisee ñi mu jàngal nga ne moo raw ci réew mi waaw loolu sëñ Fallou ko njëkk a wax daf ne xam-xam bi ak yar bi ak taalibe gi laa xamul nees koy boole te moom ñett yëpp la boole sëñ Modou mu it seereel ko loolu wax ne yéem naa ko ngir man daal ba ma ko xamee léegi musuma nuyu te tegul dara ci sama loxo waaw taalibe gi nag mu fonk ko lool jàpp ko lool te yàqulu ko dara ci sariyaam foofu mu jaaroon it fi la jaarale woon képp ku ànd ak moom moom la lay digal moom la lay sant moom lay def bëgg nga roy ko ci euh, danaan wax naa lii ma leen di digal bis bu ngeen gisee ma jàdd ko it na ngeen xam ne maa jàdd maa ma dana jàdd waaye yoon moom jàddu ma nga fam nekkoon te bu këragee ni ngeen ma ñaanal ma dellusi ci yoon loolu la wax ni nga ko wax boroom xam-xam la woon waaye it ku doon yar la ab yaram it ñu bëree bëri gis ko taamu woon ko ci luñ si mën a waaw loolu it mën naa la cee wax kilifa yu bëri bëri nañ ko wax sëñ euh, Basiru bi mu koy jox Abdou Hakim di ko jox sëriñ Falilou di ko jox sëriñ Isaaxa da ko ne fii de mënees na fee jànge jàngkat yaa ngi fi waaye nag yar bii nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci ñoom ndax sëñ Mahmadan daf maa waxoon ne ma seex xam-xam bu ngeen nee ba ca kanam kenn du leen ko laaj kenn du leen ko laaj fi mu ne kenn ku ne am na koy laaj sa mbirum diine waaye yar bi moom foo dem da koy wone mënut a ñàkk moo tax yar la lay jëkk a def euh, tarbiye la lay def yar la da xam ne loola wet googu wet mokk na rumbux fu mu lay digal yi loolu la lay digal waaw loolu mooy mbiram muy dongo yi muritu muy ci dëkk bi man wooloon na ma benn bis dëkk bi bépp ñu dikk teew mu ne ma góor ak jigéen bu ñu des keroog ñëpp a teew mu ne ku ne da ngay layoog sa mbooloo yow mal xiyam ma bëgg a layoog yéen fii bala maa dem sama ñaq wii mënuma cee naan ba mandi mënuma cee sangu kon nag duma ciy diggee sang kenn wala ma diggee ci wëgg kenn walbatiku leen topp yàlla lu waaye def ba julli jot na ko bàyyi te def ko walbatiku leen ragal yàlla te xam ne yàlla dafa sàkk yaari yoon ak yaari kër yoon wu ne jëm ci kër te ku ci aw te dëppoo yoon wa nga aw dara mënut a ci kër ndax nee na kenn ku ne yowmal xam sa borom dana laaj noo yore woon mbooloo mi nee nag man dama ko bëgg a wax ak ñoom fii bala maa dem yowmal xam <laughs> loolu la waxoon ci loolu it la nekkoon ndax li lay digal moom da ciy teg tànkam di ko jëf nga di ko gis mu di ko wax nga di ko dégg waaw gis naa koo xam ne ab taalibe ma waaw soxnaam fay yàlla def ñu fakkatal ko mu di ko wax ko sëñ bi sëñ bi ne ko ah moom kay da ngay bàyyi ba mu kii rek ñu delloo ko mu ne ko man kay damay kalaame ki ko def loolu sëñ bi ne ko ah boo ci lekkee benn dërëm rek yow man xëyam la ngaa jéggi siraat da nga ko ko jox kooku déggut loola dem kalaame ji sëriñ bi yebal man ne man demal seet déglu déglu àtte ba ba ñu ko àttee mu daal koy alamaan euh, juróom-ñetti junni bañ ko alamaanee juróom-ñetti junni mu nangu alam mu nangu xaalis ba sëy ba tas ma ñëw fanaan si man sëñ bi ne ma nu ñu def ma ne ko ah la nga ko tere woon de def na ko mu ne ah, balaa si siraat dana ko fay de ca suba sa waa ji xëy si fekk nuy naan daa taaya ne ko mu bàggale sëñ bi ne ko na ngeen def mu ne ko ah sëñ Cheikh mi woon na mu ne ko Cheikh kay nee na ma dangaa laaj alamaan ji ko waaw alamaan naa ko juróom-ñetti junni jox nañ ko sëñ bi ne ko da ñëw wuti beneen sëriñ ndax man li ma warloo yow digal la rek nga def ma tere la nga bàyyi te lii ma la digal du sama njëriñu bopp sa njëriñ rek daan na ko nit nag bu la digalee da seet li mu lay digal bu ci amee benn njariñ bu ko def na nga xam ne boppam a tax waaye boo seetee ba xam ne amu ci benn njariñ na nga xam ne sa bopp a tax lii ma la doon digal nag euh, sa bopp bii rek tax ma doon la ko digal waaye du sama jëm waaye nag li nu séq ma yow ma ne la defal nangam nga def ko may la bàyyil nangam nga bàyyi ko ginnaaw mënoo loolu nag da seet keneen koo jëbb waaw xaalis boobee ci la passe dem Belgique booba ñu bari demaguñu Belgique dem fa yi waxtu sedd bi fa la ko sedd bi jàpp ba mu faatoo fa kenn mënu koo indi Belgique lañ ko suul waaw lii sëriñ bi def na ko loolu yi la nekkee woon ak ñëpp nag soo dikkee di muritu da lay wax ne la nga fee mën nga fee toog liggéeyal ma mën nga fee toog liggéeyal sa bopp waaye taxawaal moom doo ko fi defee nee na ma nag mu kàllaf kenn mënu ko ne doo taxawaal waaye sañ nga ko ne doo taxawaaloo fi ma waaw nee na mu kàllaf moom doo ko ne doo taxawaaloo waaye sañ nga ko ne doo ko defee fi man soo ma liggéeyalee baax na boo liggéeyalee sa bopp baax na waaye liggéey lu ma liggéeyal sama bëgg a taxawal nee na mënut a nekk doo ko defee fi man moom demal nag saytu feneen foo ko defee boo dee jàng si loolu lay wax jàng mi da ngay boole jàng ak liggéey ak fanaanee waxtaan ak moom ci tarbiya gi mu di la ko wax ba asamaan set loolu daan def ñëpp ñi fi jaaroon waaw li seexu naa loo di wax ne ne képp ku fi jaar booloo moo ko fekk mën nga ne kii jaar na ko waaw loolu la daan wax nee na képp ku jaar Kosso am fay at lu mbooloo mi bari bari bari boo dikkee da xam ne kii ma jaar na fa moom waaw loolu nekkee woon ak moom daal loolu mooy jëmmam ak fonk nag ndigal taalibe gi ndax fii bi mu koy sanc dafa jóge mbiri na ñëw sëñ bi ne ko demal jàngi lawal lawal ak sànni seen xalil mu dem jàngi bi mu ñëwee mu ne sëñ bi jàng naa ko sëñ bi ne ko waaw mun ne ko waaye nag sama bokki tay ba njaañ yi ak sama bokki njigal yi dañoo wax nañ maa bëgg a ab dëkk diggante Njigal ak Taïba Njaañ mun ne ko Njigal lan dee den Mahmadan koso day dëkk bu ma fonk sëñ Touba digal ma ko lu ma fa mës a liggéey sëñ Touba la ko yóbbu te ku ma fa yóbbu rek naqari nga tax doo fa nangoo toog ma bëgg nga demal ma mun ne ko man de boo ma ñaanalee danaa fa toog mun ne ko soo demee Mahmadan na nga ci way ci jaamu yàlla ak liggéey boo liggéeyut lu ñu la jox lu bari bari dañ naa li koy jox fu mu aw boo jaamuwul yàlla it bu taxawee yomal xeeb da nga xeeb sa bopp xeeb ko taxul jaamuwoo yàlla kon nag soo demee wayal ci yaar yi liggéey ak jàmm yàlla rek moo ci dool li mi nag sëñ Mahamadou dolli ci njàngale mi moom waaw moo ko ci dolli nag daf fi daaree alxuraan daf fi daaree xam-xam jiite ko nag lii la woon ba dëkk bi toll fii mosu wuti fenn lenn it loo wax rek mu ne ah lii de lu fi ñëw ñëwagul waaye lépp fi ñëw ndax la ma borom borom daaru du waxee bakkan lu wax ngir lu neex nit waaye lépp ñëw na waaw lépp ñëw na tey jii toll nañ wax yoo am na fi ñoo xam ne bu ñu génnaatoon tey ñu ne leen nii la dëkk bi mm-hmm. dañ koy wet dañ naa li du dëkk bi waaw lépp nag jëfama akub liggéeyam moom mm-hmm. mag ñoo xam ne ñu ngi woon ak wala moom moo fi nekkoon. bi mu fi ñëw nag euh, ay mag bariwu fi mm-hmm. sëñ Massamba gi daal fi na ko fekk ak sëñ Mor Khary Sylla ndax bi sëñ bi goree dëkk bi ba àggale dafa na sëñ Modou Khary Sylla da nga fi nawet mhm. ndax xam nga Thierno moom euh, wax wax sa rek lay gor mhm. ab dëkk bi ko goree ba noppi rek dana sëñ Modou Khary Sylla da nga fi nawet mhm. mu metti lool ci sëñ Modou Khary ndax kenn niwu fi àll bi dara niwu fi ngaraa fi nekk ak bukki rek ak i segg waaye teewut dafee nawet ba nawet ba jeex sëñ Mahamadan soog a dikk soog a dikk ndax ko sa ñu ngi ko vingt 1922 waaye 24 lañ ko sañ waaw sëñ Mahamadan Ndike nag fi la fekk sëñ Mor Khary Seye fi la indaale sëñ ma Gueye fekk ko fi ñooñu mag laa àndaloon bi muy ñëw mu indi Abdou Diop ko kàdd àndaloon muy goneem ak sëñ Mat Jam yi waaw. moom ne doon na taxawaayam ci kilifa yi mu fi nekkaloon ma xam daara wala Touba ci ñooñu ñëpp ay sëriñ la leen def waaw kenn ku ne da koy woo ab liggéey te du fa jóge te la ko sant di ko sëñ Fall doo koy woo. sëñ Moussa Balla seere na ko keroog bi mu teg première peeru jumaa ji bu Daaru Muxti bii daf ne bu max ma doon wérandé du ma ci doon dara mën na maa dem fu ma neex mën na maa tëdd sama kër waaye wérandé gi rek moo ma metti ba jox la foofu it firnde nekk na Daaru Rahmaan ruuj ba ruuj ba àgg ba daara yëpp ñu ruujal leen mu nekkoo ko da ngay fanaan bu subaa ñu xëy yóbbu la ci guddi gi asamaan sébbi bi asamaan sébbee Mm, sëñ Modou Awa Balla na ko tey jii laa bëggoon mat jën Jóob ànd ak alsaan loo dem Louga jëndi ay fas lu mat juróom-benni fas far asamaan bi mu ne ko ñoom nañ dem daan ne ma demal ne Modou Syll ca koso da ki jëwriñ ji nee ko fas yëpp nañ ñëw ma daan di ñëw fi wax ko mat Syll xam nga jëwriñ yi nag dafa dooy waar mat Syll daal di ne euh, daara ju ne nañ ci jël yaari fas wàcc fa yaari fas ñu daal di àndandoo dikk indi yëpp mu toog ba yàgg ci bi yéen bi mu ne nan dem seeti tool yi di ko xool xool xool gisul loolu euh, loolu mu ne ma wóol ma mat sill ma le ma woo mat sill mu ne ko ana fas yi dañoo ñëwut mu ne ko ah, ne yaari fas ndax bëgg daara ju ne euh, des tool bu mag mu ko ana buy tool bu mag bi tool ceerno bi mooy tool bu mag bi ah dellul ca kër ga dellul ca daara yi aw bu fas fanaan am na ci dongo yi ku ku ku ku ku ku reelu ku ñuy wax bay daan ngoom xaw ma da ngay jaay taali bi xaw ma waaye njiw mag de moom ko am ren <laughs> lii la bay daan ngoom waaw lii la ko wax naka xaw ma xaw ma ci dara waaye njiw mag de moom doo ko am ren moom bu sobee yàlla waaw ñu indi fas yépp mu toog fa ba mu ji ba sëñ wala ba la ji ba buural ba lépp noppi nu soo a ñibbisi loolu la daan def moom li ko sëñ Modou waxtaan moom bakkanam bii la ci teg tabaski sax buy joxe dañuy wax nañ seet yi ci ëpp ñu yut ko ndax moo moom moom tabaski ndax mooy ceerno waaw lii lay lii bu ñu sëñ Fallu woo it noonu woo noonu kuucu woo noonu aliya woo noonu Tuubaa Bogo waaw waaye dañ fay toog booba liggéey bi demeegul noonu dañ fay toog am na ci boo xam ne otob ceerno jenn bii laa jël indi ko fii ma jël ab wula otoom mu jël waa Mbadiane ma jël Ali Baba otoom mu jël wàll tal-tal gi ak waa Mbayeen Mesere waaw keroog ban fa àggee keroog li tool bi yaatu yaatu yaatu yaatu mi di fekk na nu dajale ko bàggale waaw sëñ sëñ Fallou dikk daal di agsi daan ne fu ngeen toll ma ne ko noppi nan kay ba dajale ko waaw keroog la sëñ ñang mii teg loxoom ci garab gi dóor ci jaasi baaraam bi roon mu ne sëñ Fallou addee Mahamad ma ngi nii loolu loolu la jàppoo woon ak ñoom la sëñ Modou Mamoun wonoonu fi sañ Cheikh Awa Balla noonu waaw. ku mel ni sëñ Abdoulaat it meloon nañ ni ñu ñaari nit moom kenn lañu woon ndax sëñ Abdoulaat bi mu ñëwee taabe gi sëñ Mahmadan tax mu ñëw taabe moo ko ne da nga koy laaj sëñ Modou Awa Balla mu jox la ko mu laaj ko sëñ Modou Awa Balla sëñ Modou Awa Balla ko ah suuf sépp kay sa sa sa sa bàyyi ko moom foofu soxla kay demal mu dikk sañ ci taawe di fi bay waaye fii la ñuy jóge ji gerte gi raadu ko bayaat ko bu dëqi jote nu dëqi ko naaf ko ba ñu bàcc ko ba jëri ko bi foofu xatee mu laajaan bajaan ñu yóbbu ko bajaan sëñ bi boole ko ak sëñ Modou Badiane boole ko ak Mor Tout boole ko ak sëñ Masseer ko ne leen na ngeen ko taxawu te xam ne kan mooy sëñ Touba ñu jàppale ko ba mu nekk Mbadiane lu yàgg Mbadiane sax la mujj nekk euh, euh, nekk foofa di fa liggéeyee benn la woon nag moom ak sëñ Mahamadan ñu ñaari nit bis bu sedd bi mu nekkee taawe dana fi ñëw ñetti yoon waaw ñetti yoon dana ko ñëw ci bis bi ci sëñ Dan waxtaan ak moom laaj ko xalaat loolu la daan def moom ba bi mu doonee xalifa waaye sëñ Mahamadan daal taalibe gu mat sëkk laa xam ci moom xam-xam bu mat sëkk diine ju mat sëkk ngor gu mat sëkk euh, kersa gu bari lool xamee na xam nangu caa tàbbi nag waaw nangu ndigal it ci yi muy diisoo lii daal laa xam ci moom na ni ku yaatu woon la ndax boo xoolee nangoo jaboote gi ak tëdd njaaxaanaay bi am na lu mel ni fi jafe woon muy ndox di forage public yi néewutoon ci dëkk bi am dëkk bu mu néewoon sabab ban moo war a dem foofu. loolu dañoo yónnee euh, Mamadou Dia daa ñëw fii na ko dañ lay defal forage sëñ lu wax nañu ko soññ na ko soññatoon ko moo tax ma jaar si fi ndax ñemeetul mu soññ na ko waaye na danoo am benn xalaat danoo bëggoon def forage bi ci. natt ko fi digg bi seen digganteeg mbajaan ndax mbajaan moom yàlla daa def tubaab yi fonkoon ko xam naa lu sëñ góor a mbajaan def ci mbajaan la tubaab bi ku jóg rek mbajaan ngay wuti fonkoon ko lool loola nag moo tax euh, ñu ne Mamadou Dia ne ko nag mbajaan dañ koo def centre nu bëggoon nag natt diggante seen diggante sëñ na ne ko mbajaan mooy fii ah mu ne ko du ñaari dëkk benn kër benn dëkk la buntu kër la ci fii ñu soog a dem tàmbalee Mbadiane ba ak si muy onze kilomètres ñu tàmbalee Taïf ba ak fii muy dix kilomètres Ahmed Diop na ko dama bëgg ñu boole ci Kellal mooy sama kër baay ñu natt foofa muy sept kilomètres keroog ba ñuy samp weñ gi kenn nekkul Taïf bu ku yàlla bind ku nekk Taïf amul ingénieur bu ñuy wax njawar moo samp weñ gi dafa xool garab yi rek daal di samp daal ne man ndox mi dana bari dana neex ñu daal koy gas loolee mu waxoon mu am ñu daal di wëlbatiku daal di yóbbul Mbadiane Mbadiane lañ jëkk a jëkk a yóbbul na lu yàgg te koso xel bu xel na juróom weer te koso xel bu benn bis sëñ bi ne ma kaay dem ci sëñ falu boo demee nga soññ ko ndal lu tëye tiwo yi ma dikk ci sëriñ bi soññ ko mu ne ma da ngay dem fanaan kër sëñ Modou Bousso Dieng boo xëyee nga ànd ak moom dem Dakar daan sëñ Modou boo demee bul ba bul bañ a àgg ba ca Senghor laaj leen ma lu teem koso naan nu dikk yàlla dogal bi nuy agsi nu daje ak Omar Mbacke député sëñ bi wax ko ko nu ànd ñëw <clears throat> bi nu ñëwee ñaal koy wax ministre des travaux publics boobu ko ñu wax Moustapha sekk dëkk Thiès mooy ministre des travaux publics Moustapha Seck ne ko kat dañoo boole woon marché bi ak marché bu ndar Collé mooy ministre de finance nee na di dindi bu ndar bi te def bu koso bi Omar Mbacke ne ko loolu mooy yow ñu soog a dindi loola daal di dikk mu soog a ñëw ba jaar si sëñ Fallu na ko day na ko gàllankooroon di dund nañ ko nee ñu semaine bi dana ñëw ñu téye ma Touba ñetti fan bi ma dikkee fekk naa ñu tàmbali tubaab yi ñëw nañu ba tàmbali sa sasif compagnie bu ñuy wax sasif ñoo ko doon ñoo ko doon defar mu ne leen fu mu romb na am ab tiwa fu mu romb rek na am ab tiwa keroog ba ñu ko tàmbalee Amidou Diop sax taalif na ci taalif na Mamadou Dia nee na ko tiwa ba jëm koson na jaari saa kër defal ma fontaine ba ma gën faa saakir loolu loolu loolu la Amidou wax waaw kon nag loolu mu def ko nag noonu ndox mi nag dikk ñëpp nag bokku ci waaw. léegi jógee ci moom lu mel waaw. ñu defee noonu yi mu ne ma lu dëkk bi nañ ko lotissé booba tàggaleeguñu Louga ak Diourbel maa dem ci maa dem ci maa dem maa dem Njaareem ci Abdou Ndeera Ndiaye ne ko sëriñ bi daa bëgg ñu nattal ko dëkk ba. lotisel ko ko mu woo cadastre ne ko ndax seen budget des na mun na ko mun na ko dañoo bëgg na lotiser ko sax mun na ko des na lu ko mën a lotiser ñaa leen yebal si fii ma ànd ak ñoom fanaan si mën na ko yebal seen a cadastre ñooy def plan bi su noppee nag géomètre bi koy natt dana ñëw ñu daal di dëkk bi defar ko mbedd yeeg lépp fi mu ne plan la am mu ngi ci plan national bi waaw bu caagi nu dañoo taxaw rek naa rëddal fee defal lii plan la am ñu redressé ko sëñ bi dalal dalal leen fii ci sama kër fay xaalis bi fay lépp ñu ñun ko ba lotissement bi àgg loolu la fi def loolu mu def ko ci dëkk bi waaw. waaw bi yàlla dogalee bi fi jógee njabootam gi mu fi bàyyi ku mel ne sëñ Maam Mor xam ñoo ne ci waaw ñoom itam la leen waroon lépp def nañu ko ndax du euh, mu fi jógee Maam Mor dafa dikk toog mat ko sëkk itam nag di nit ku baax. ku am diine ku fonk taalibe yi fonk ñëpp taxaw ñëpp taxaw it nag dëkk bi lu am ci dëkk bi rek lu war a am ci dëkk bi rek mu santaane ko keroog ba ñuy jox sëñ Moustapha May courant bi arafa daf ne Abdou Diouf bu munta jaari koso nañ ko bàyyi ba ko sa yëblaat soññaatee mu waat sëñ Moustapha May sëñ Moustapha May ne ko la ma la waxoon su munta jaari koso bu mu dikk arafa Abdou Diouf man la dajal Touba euh, noonu mu daan def euh, euh, gaaw bu ne mu ñëw Touba ne ma kan moo nekk koso man na ko koso de sunu bàyyi fa nekk boo xam ne ñun ñëpp moo nu yar moo nu jàngal moo nu dencal moo nu seexal teg na ci yoon mun ma lu lu mbokk sa seen bàyyi ma ne ko ndey ak ma ah tax kay sëñ Moussa may ma loolu léegi kay na jaar si koso na courant bi jaar koso jàll <laughs> lii lii la Diouf wax daal ne ma mooy àgg rek sa na léegi dana ko jaarale koso waaw mu daan koy jaarale koso ba làmp yi doy fi sëkk mu soog a continuer arab lii sëñ sëñ Moussa May loolu la def maamoo rek taxaw ci ñoom ñu nekk fi jubóog seen i kilifa lool sëñ Abdou Xulos di kilifa gi ñun ñëpp nu maase nag topp ko ak ñoom duñ def si tàgguwuñ ko lu mu nu digal nu def ko waaw lii ci lañu nekk ba dëkk bi toll fii loolu nag ci la ñu nekk loolu it ci la sëñ Moxtaar mii nekk keroog ba fi Mamour jógee dama leen ku fi romb Matar di wuti sëriñ leen ni ngay wut waaye wuti woo ab sëriñ boobu jébbalu rek waaw wala bu la mën a taxaw wuti woo ko leen na ngay raas nag waaye raasoo tey tey loolu la sëñ Moustapha Absa waxoon ci sëñ Abdou Khoudous da ne ku romb Abdou Khoudous fii daal di wuti feneen sëriñ wutoo ab sëriñ am na leneen luy wut loolu moo ci nekk waaw. waaw moom nga jot li mbokk taalibe yi fi ak. waaw li ñuy wax taalibe yi rek nañ nañuy fàttaliku loolu gone yi xëy na mag ñi jeex na waaye nañuy fàttaliku lu ñuy dégg ci mag ñi ci li fi sëriñ bi nekkee woon mhm. jaamu yàlla rek ak liggéey ak yaakaar yàlla waaw jaamu yàlla liggéey ak yaakaar yàlla te xam ne yàlla moo yor lépp mhm. tey loo ko ko borom daaru waxoon ne ko ku liggéeyul bu la àddina bépp doon jox itam te liggéeyoo dañu naa li am fu muy jaar ku jaamuwut yàlla it nee na ko boo demee yowmal xiyaam da nga mere la deful dara kon nag nañ nekk ci loolu nañ jàpp ci loolu te jàpp seen sëriñ sëriñ si te téye leen te jàpp taalibe gi ndax kat li ñuy def lépp yaakaaruñ ci dara sëñ Touba rek lañ yaakaar te sëñ Touba kat gi rek lay lay xoole nit ñi waaw ci lay mën a àtte nit ñi itam nag waaye sëriñ bi léeg sëriñ bi laag dañuy fontoog léegi kenn li xew kenn xamu ko dara xewut waaw nit ñi soppiku waaye dara soppikuwut yoon moom soppikuwut taalibe gi soppikuwut sëñ Touba moom teraangaam day gën di yokku rek waaw teraangaam day gën di yokk rek delluwul gannaaw benn bu delloon gannaaw sax nga mën a wax ah ñii ay fasinaaru góor rek lañ daan am ku ci masa am yaari fasinaaru góor ñu nekk moo fi ëpp barke ah, ku ci masa am ñaari kaaskare ñu ne moo ëpp barke léegi salde bee Abdou Sili bee Balla xëy ko am ah, salde mais ba képp laa wax bi mu karoo defar ko indi saasi indi ndox bi koo am ah mën naa jënd yenti fas te yaari fas rek nga daan am ak sàqum ñaar ñu ne kooku borom barke la nga xam ne ñëpp lu waaye di xew la ci dëkk bi day dem wax ko tey nga bojj téeméeri bari ko dugal ci sa ci sa saal gaare ñetti oto ah nga xam ne sa bàyyi amu ko woon nga am ko yow ñu naa neexut jamono ji neexut neex ba dee la def nit ñi nag ñoo soppiku rek waaye nag sëñ bi nag du bàyyi moom mukk mukk mukk njabootam gi du leen ba moom bu leen taalibe yi joxee yàlla yàlla dana leen jox bu leen joxut itam yàlla dana leen jox waaw sëñ Mahamadan mas na ma ne sa tànk yow mal xam ku ne seex da ngay dér ndax ne du ma ba bañ a gaaw a daanu sa borom dal naa sa tànku càmmuñ bi balaa fekk si sa bom day jor bi wërsëg bi ma la joxoon da nga wax ci loo ko jeexal mu ne soo too wax dërëm bu ne dala wax ne man de barab sàngam la ma dugal ba ba muy jeex loolu nag boo ko seetloo ne ko man de dama koo delloo woon sëriñ ba lay wu yomb la ah. waaye nag mëne su leen a atum ñu leen nag mëne su leen a def léeg wala wala waajur wi nga ne mag ñu dañuy font rek paa bi day font rek ah. te am ta omaalu ko li abiki yow ak sa alal lépp ñel na sa baay lañ wax ah te bu sa baay waxee ñaar yoon nga ne dañuy font rek mën na su sa wër gàmmoom kenn mënu ko wër ah sëñ Mahamadan mii danga daan dikk di jébbalu si mu ne la ku fa sa baay nekkal soo ko nee moom doo fa nekk mu ne la ca moom mën naa ci cité kenn sëñ gàkku mii bàyyi moom dong la am keroog ba mu ñëwee na ko damay murit mun ne ko ku mbay gàkku am ku fa ku fa nekk sëñ bay gàkku mu ne ko kenn mu ne ko dellul dellul toog fa moom te di ko liggéeyal ba mu gërëm la waaw ginnaaw bu bàyyam faatu la soog a ñëw ci daara ji ah waaw waaye ñi euh, tooñu ma tukkër yi waaye ñoo ci gën a raw bu meer bi santaane wala baay bi santaane rek ñu ne dañuy font rek man Sénégal ma ne su leen a liggéeyal loo def nangam ak nangam loolu ay caaxaan dong la loolu nag laa bëgg ñu nit ñi dañ ko raxas ci seen bopp raxas ko ci lépp te xam ne mbir mi la fa nekkoon jógu fi la sëñ Abdou Khoudous naa la fi nekkoon jógu fi wutin wee wute wuute rek waaye ku ko wut nañ ko doon wutee da nga ko am nañ ko doon amee ku ko sàgganee defe ne mun a am doo ci am dara waaw loolu la waxoon waaye lépp dafay bëgg a jeex léegi léegi ak murit jeex na jàngalu alxuraan jeex na na dem jàngi maçon na dem jàngi menuisier métallique ah na dem jàngi plombier wala nga wutal ko saret nga xam ne am nga doom yi làppatoo nag du dem ca daara ji jàngi alxuraan du muritu ji ab saret nga ko wutal mu doon ab làppatoo nag ba ba muy faatu doom yi làppatoo nga am wala nga wutal ko ab jakarta nga xam ne waxtu bu ne mu ngi ci yoonu dee fàtte nga sëriñ bi ak li sëriñ bi daan deflu wala nga jàpp ne loolu amatul te ba tey am na waaw maa ngi leen di sab di leen gërëm wasalaam lépp lu mu kanam la ba suñ ci këram gee ci yoor yoor di dem arafa ñu yenu néeg yi fi la fekk moom kii waaye yow sa bu ma masaan jóge ci sëñ Mahamadan sa kër gi ci yow laa nekk te nga matee ko sëkk mat ñu woofu ndax boobu suñu Mamadou yaramam yaram wu noonu mm-hmm. bi ma fi suñu laa di indi mm-hmm. moo bàcc géey képp ak man ñoo ñoo nekk ci oto bi biñ ñëwee booba euh, sëñ Fallou nekk xalifa man bi sëñ Fallou ñu nelaw bii la ma fekk la mm-hmm. xadraale la la la jóge kër suñu tool ay mbir nag yu tuuti tere yoo xam ne mënu su koo kii waaye yow de